اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به رديت عن المولى الذي ربى واني sa sant ginnaaw buñ sante yàlla julli ci yonent bi nga xam ne moom moo tax ñu bind kuñ bind moo tax ñu bind kuñ bind ku fi taar rek yonent bee tax nga gane àdduna bind ko di sant soxna bintu mi ndax lim yëkkati dafa rëy de lim yëkkati lu rëy la te xam naa ne ku ko ci jàppale ku ne moom a sa kër nga àjjan loolu moom wóor ndax moom boo ko bëggee tuuti mu fay la junni loo ko bëgg rek mu fay la lu ko defal la loo xam ne lu kawe la bis bi mu yëkkati ni man dama ci daan teertu soxna moom doomi sëñ Abdou Khadir ja di ci wàcce ay kaamil daanaa wàcce juróom fukki kaamil fanweer yi moom laa koy jox ñaar fukki sama papa ak sëñ Mahmadan Joobe sama nijaay ak sama yaay ak sama baay kon man li mu yëkkati xam naa lu mu doon li tax mu def ko ba jël ko it xam naa lu ko son borom sant la xam naa ci bu wér ndax man ku xam yonent bi la te xam bëgg ko bëgg ak li man fi ne ni ngi fa bàyyi ko wér mu jóge lopitaan ñëw ci kër ga waaye dama ko faa ci ndax lii man dama ko lay ba mënatuma soxna Bintu di ko baax ndax ne gën a mënoon naa fekk mu ne yaa ndey kay day fen ndax saa bu ma ko bu woone ba ne ay addi ak yooyu rek ma lay ba génn ci doonul lu ma ñorut dembaat dangaa fekk ma nekk ci yoo xam ne rek amu fa ma jaar ba bàyyi waaye li nga def ni moom a gën a ñor ci addi képp kuy noy ku ne xam nga ne yonent bi moom amul morom te yonent bi liggéeyal ko rek mooy dara ndax sëñ Touba sa maam da koo liggéeyal ba amut fu ko liggéey da koo sant way ko ba amut fu ko ko wayati kon bu jullit taxawee na day sant Rasuul la mboolem fu waay nekk ngay mag di ndaw war ngaa taxaw ca bés buy tay def ci li nga mën ak li nga mën man de wax dëgg bu ma a wago laa koy wàcceel ci oto ay avion sax laay wax amul lu ma ci bañ nag xanaa lu ma mën rek mbàgg ndax kooku moom maanaam li ma la wax rek ci biir wax bëgg ko moo am solo ndax ñun amuñu fu ñuy teg suñu tànk boo xam ne dana tax yàlla yàlla dimbali ñu yaram mi te yonent boo ko bëggee rek yàlla bëgg koo xam ne boo ko bëggee yàlla bëgg la bay ba nga bëgg ko ndax moom boo ko bëggee doo am dara loola métti te doo ko am fi doo jaaxle fii doo jaaxle fa nga jëm wallaay la asum li ma la bun sarif kooku mooy xaadimul nabi kooku ku ko bëgg rek maanaam da nga yóbbu ñu bari àjjana firdaws loolu moom wóor na moom mii de na tëb li mu ma de Mbàkke bis bu la ci yàlla faye sa jee maam Serigne Touba sa xol dana sedd dana sedd te danga nga yóbbu àjjana ku la neex ja sa jaaxle moom jeex na bu soobee ak ku ànd ak yow ak ku te maa ngi ñaan ci doole Rasulullah la yalla yàlla fóot mboolem muy jigéen këram yal na ko yàlla defar jubale leen seeni borom kër dimbali leen ba fu ngeen yàgg fu ngeen bëgg a yàgg yàgg fa soxna si nag li ngeen koy dimbalee mooy diine l'islam fu ma mas a taxaw ba wax fa wax naa ko fonk julli fonk salaatu ala nabi fonk ay mero fonk ay defante liñ naan nañuy def lente te bàyyi defante bi góorgóorlu leen ci kii ku ko sapp ku ne noonu ngay mer doo am dara lu lay metti sa digga sa morom te ku la mere nga neexal ko man loolu lay dund man bugguma ko ma mere xam naa sama sang bi dana am lu bari lu mu ci xam tubaar fakkaal la ku ma mere rek laa bañ te lépp lépp ci yonent bi laa ko jël kon soxna Binta wax de waxaat day tax mu yàqu Mbàkke yal na yàlla fay la te jote fii ñu dajata yal nañ fi daja ay téeméeri at Mbàkke te lu waaye soxla sun borom faj ko lu waaye indi fii ci mettit wala naqar yal na ko sun borom saaf barke nabil Moustapha xaadimul nabi mi nga xam moom moo tax juróom fukki julli mu wàññi ko ba mu toll nii mu toll di waxtu yu juróom yomb kon nag war nañ koo jëfal jëfal ko mooy jëfal yàlla jëfal yàlla mooy jëfal yonent bi alayhi salaam kon yal na nu yàlla jàppale te dimbali ñu Mbàkke kii bariwul Mbàkke ñetti junni la dama ko siyaare rek ba ëllëg ba ma ñëwaat fi yeneen yoon waaye cant gi fokk ma dugal ko ma noppi door a joxe addiya ji jërëjëf Mbàkke wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina wa moolana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimi wa ummati wa sallama taslima asalaamaaleykum mbokki yi fi teew yëpp ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziara di leen jox seen wàcco bu baax di ci dal ci nuyoo bi ak ziar bi nag Cheikh Mouhamadoul Mountakha di ko ñaanal sëriñ ñu borom Euh, gën ko fa yàggal te doon ko wér ba naal yem yëpp naalal Cheikhul Khadim lépp mu àggale ko te lépp ñu ànd ko ak moom. waaye di ziare Serigne Cheikh Ismaïla Mbacke xalifa Mamour Diarra ni ko ñaanal suñu borom ko fi loolu te dolli ko wér ba naal yi mu naanal Mamour Diarra borom saam lépp ñu ànd ko ak moom. waaye ñaanal suñu borom dolli ko. loolu ak yàgg fi lool bali mu naanal maam lépp ñu ànd ko moom waaye di ziyaara it di nuyu bu baax Serigne Bara Mbacké di suñu waajur di ko bu baax a baax waaye di nuyu Serigne Modou Mbacké xalifa Serigne Cheikh sulo ni ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te dellu bu wér ba li mu naanal liggéeyal way juróom Serigne Cheikh Astou lépp suñu boroom kàttanal ko te lépp ñu ànd ko moom waaye di nuyu bu baax soxna Bintu Rasul bi nga xam ne moom moo woote jataay bu am solo bii mooy li ñuy wax gàmmu te gàmmu ko ko wax nag mooy màggal juddug yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñu di ko fàttali ko tey fii ci Mbàkke Xawar mooy bis bu am solo defe naa ne ku fi yandu ci suba ak léegi yaa ngi gis ne ñi ngi dundal bis bi ci ne ko eh, suñu borom santaane Euh, te Cheikhul Khadim euh, fat euh, waxoon ne nuñ koy màggale moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jasbul xuloob di taasimo bi sunnati ndax ñi ngi fi xëye jàng alxuraanul karim wàcc fay kaamil ci taxawaayub sëriñ Cheikhouna Mbacké mbitoo ak sëriñ waakar sëriñ Mbaye Sakho Niang ñu jàng fi alxuraan ju am solo waaye it ñu yondoo fi ci li ñuy wax kon nag bu ñu ñëwee ba bis bi yegg si fii dafay baax nag ñu amal jataay bu am solo boo xam ne danañ fi jëlee ab yóbbal boo xam ne danañ ko mën a yóbbuloo ba bis ba ñu fi teewaat ndagani seen di ñaan suñu borom kat bàyyi fi ñëpp dañ fekkawaat ko ak jàmm. jataay boobu nag ñu fas yéene jànd ak borom xam-xam bi toog sama wetu càmmoñ di Serigne Cheikhouna Mbacké Gànnaar ñu min ko lool ci yaatal xam-xam. waaye it ñu min ko lool ci jataay bii nga xam ne fi la war a yëkkatee kàddu yu am solo yooyu ndax mel na ni yàgg na ko taxawe mu fas yéene waxtaan ak ñun nag ci thème bu ñuy wax tawhid tawhid di thème boo xam ne xam naa bu ñu ko teewloo dana ko gën a yaatal incha allah ba ñu xam lan mooy tawhid ak euh, lan moo wuute ak moom waaye it ñu bëgg ci ànd ak tamit ku ñuy wax Serigne Saliou Mbacké Likhlass moom it di borom xam-xam buy yëngu ci di yaatal xam-xam eh, moom it mu fas yéene waxtaan ci saawatul bi nga xam ne moom mooy eh, Seydina Ousmane ndax ku ne xam na ne bis bi dañoo baaxoo saa yi ñu teewee rek ko ni ñuy fàttalikoo yónnante bi noonu it la ñuy fàttalikoo ay sahabaam yi nga xam ne ñoom ñoo àndoon ak moom eh, ndax yónnante bi moom ku ko wax rek wax sahaba yi te ñoom ñëpp di ay royukaay ñu tànn ci benn royukaay ci ñoom mu muy Seydina Ousmane mu fa yéene ko waxtaanee waaye xam naa ne dañuy jox kàddu gi duñ guddal sëñ Cheikh mu jublu ci waxtaan wi rek. bu ko defee fii léegi muy jeexal Serigne Saliou yëg seegut waaye nag mi ngi ci yoon wi bu ko defee bu yëg see mën a ànd ak ñun ci tam boobu nga xam ne moom moo ciy tëpp. kon ñu jox kàddu gi Serigne Cheikh naa mu fas yéene ànd ak ñoom di sàkku ci ñëpp nag ñu teewlu ko bu baax. Eh, ndax waxtaan wi lépp njariñ lay doon waaye nag njariñ moom bala nga ko mën a jariñoo rek dafa def nga teelu ko teelu ko di dégg ko bu ko defee rek nga doog door koy mën a jëfe kon ñu ngi sàkku ñu nekk ci biir kër gi ñëpp te jàppuñ loo xam ne mënuñu su ko bàyyi ñu daal di yegg ci baas bi ñu bokk teewloo na waxtaan incha allah kon sëriñ incha allah bisimilah bismillah inna waliyallah wa ma tawfiqiya illa billah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ala xayri xadimihi abdillah waltu nawwir xalbi bi fathin wal isra rabbi sadri bi faydi ma in maayini asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi fi teew ni ngi leen di nuyu nuyoo lislaam bu sell bu màgg boobu di ñaan yàlla li ma làmboo di jàmm di yërmande di bàkk yàlla na ko yàlla boole defal di ziyaara borom ëtt bi nga xam ne ci lañu nekk tey ndax ku ne mbàkke xewar ne maam Mor Jaara borom saam yàlla na ko suñu borom doon dolli njëggal ak yërmande te tas na ci barkeem ki nga xam ne moo fi toogee ab jataayam di Serigne Cheikh ñu ngi ñaan yàlla mu kàttanal ko te dëgëral ko ba li nga xam ne bëgg na ko yéene lépp mu matal ko ci coobareem noonu lañ koy ñaanale borom kër gi nga xam ne ci lañ nekk tey itam muy bàyyi Samba Ëssuloo yàlla na suñu borom gën a dotti ci moom niiri yërmandeem ak njëggalam di siyaara bu baax sëriñ Modou mi nga xam ne tey moo di ab xalifaam ak mboolem ñi nga xam ne ñoo di ay rakkam yépp man jee tudd ñi nga xam ne ñoom lañu bokkal jataay bii nga xam ni ci lañu toog comme ni ko sëriñ Cheikh Abdou waxee di siyaar bu baax soxna bintu itam mi nga xam ne moom mooy taxawee bis bii bokk ci bisi yonente bi sallallahu alayhi wa nga xam ne ko mata màggal la ku mat a jox cër la teg ko fa nga xam rek fa la ko boroomam tegoon ndax boroomam daa bind lépp ba noppi jël ko teg ko ci kaw gënal ko ci lépp lu mën a doon yonent yi ñoo gën ci ñi yàlla bind ñëpp te bi leen yàlla bindee ba noppi itam da cee tànn di ci tànn ba tànn ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam fa kaana afdalahum wa sayyidahum wa xaatimahum nga xam ne mooy ci mujj moo ci gën itam kon kooko di ko màggal lu yay la rawatina weer wi nga xam ne moo di aw ndax bu dee gàmmu dey bis bi gën a ràññi ko ci weeru gàmmu waaye weeru gàmmu yépp lu ñuy dundal la ci màggal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko Serigne Touba daan doon defee sunu royukaay ndax Serigne Touba newoon na daani ila ixya ida sahri kawnuhu li xayril wara zarfan xawa kulla suudadi li ma yóbbe ci may mag may dundal weer wi li ma dund ci may li ma yóbbe ci may dundal weer wi la wax mooy weer wi nekk gi mu nekk di defukaayu sunu sang ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon dana am solo ci bis yu mel nii ñu ci ndokkeel bu baax a baax soxna Bintu ak mboolem ñu ko àndal mooy daairu subhaanallazi asra bis yu mel nii dana baax lool buñ ci see kon ñuy fàttalante loo xam ne luñu lu ñu mën a dollikoo la lu ñu mën a jariñoo ci sunu diine tey nag moo waxoon ni ñu indi tomb boo xam ne dafay jëm ci at tawxiid tawxiid mooy lan mooy wéetal yàlla def ko muy kenn tawxiid nag lu mat di waxtaane la ndax mooy li nga xam ne moo war a jiitu ci lu nit ki di xam sa digganteeg sa boroom dafa am lu ci war lu war sa digganteeg sa boroom te bala nga koo xam jox ko àq ji mu laaj faww da ngay xam yàlla ba noppi xam-xam bi lay jàngal nga xam sunu borom mooy kan ak ban wàccuwaay la am fa nga ko war a teg xam-xam bi koy jàngale moo tudd tawxiid loo tax xeeti xam-xam yi bari na lool waaye Serigne Touba ba muy jàngal dafa wax ne xam-xam yi bi ci gën nga xam ne booy jàng moom nga war a jiital mooy xam-xamu tawxiid wa afdalul ulumi bil itlaaqi tawxiidu rabbina ala ittifaaqi wa baadahu tafsiru lil qur'ani summa alxadiisu xaaluhu daymaani jàng alquran xam li ci nekk lu am solo la waaye teewul li muy am am solo mooy tafsir dafa wax ne li ko jiitu mooy tawxiid te mooy wéetal sa boroom xam sa boroom jaamu ko di ko wéetal te bañ koo bokkaale ak kenn danañ ko tënk nag ci ay tomb ginnaaw bu ubbee li nga xam ne moom lañuy ubbee tam ba nopp muy tawxiid muy tamxiid bi danañ wax tawxiid cig leeral mooy lan dafa am itam ay cosaan comme ni nga xamee ne xam-xam yi dañ koy seddale di ko wutal ay banqaas ak ay na naka noonu la amee cosaan am ay xaaj yoo xam ne moom lañ koy seddale itam rawatee ñi ñu tuddee al ashaira bu ñu waxee tawxiid itam bokk euh, tawxiid te mooy wéetal yàlla danañ wax ca wet ga daan ne bokkaale bokkaale di lu ëpp a def bokkaale mooy lan ak danse yi nga xam ne mën na koy jur mooy xuturatu shirk loolu ba tey danañ ci ñëw insha allahu taala kon tawxiid buñ ko waxee mooy wéetal jëmmi baat bi rek li ñuy li muy tekki luxatan bu ne tawxiid mooy wéetal mbir mi nga def ko lenn nga xam doo ko xaaj xaajee doo ko def ab lim waaye danga koy def muy lenn rek bu ne waxadahu tawxidan mooy def na ko muy benn bu ko defee safaan bi nag mooy ishraak mbir mi defoo ko lenn waaye danga cee boole ñeneen ñi boo nee ashraktu boo nee ashraktu kasa wa kasa fil amri mooy mbir mi boole naa ci nangam ak nangam ak nangam saa yoo ko defee ab lim def ko ay xaaj rek boobaa léegi bokkaale moo nekk noonu mbir mi boole naa ci nangam ak nangam ak nangam bokkut ak nga ne mbir mi def naa ko mooy lenn waaye buñ ko waxee nag. ci njàngaleem lislaam mooy lan mooy gëm yàlla gëm goo xam ne ngay gëm ne yàlla kenn la ci léppam kenn du ko bokkaale ci dara yàlla mooy borom sañ-sañ bi nga xam ne lu ko neex def te du ci diisoo kenn du ci tàggu kenn te moom képp moo am sañ-sañu def loola mooy ki nga xam dañuy wax ni laa sharika fii fi mulkihi wa tadbirihi yàlla ngooram kenn bokku kook moom la muy def ci tëraliinu boppam itam am na ca sañ-sañu def ko te du ca diisoo kenn loolu bu ñu ko waxee kon mooy nga gëm yàlla ca façon boobu gëm ni suñu borom kenn la kenn du ko bokkaale ci lenn dañuy wax ni loolu ci gàttal mooy xamle tawxiid ci lislaam ndaa umpul kenn ni diine lislaam mooy diine ji nga xam ne moo gën te mujj te gën ci mboolem diine yi yàlla jox ko sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye mboolem diine yi fi jiitu diine ju mës a ñëw yàlla jox ko ab yonant bokk na ci la ko taxoon a ñëw mooy ngir di xettali nit ñi ci lëndëmi kéefër ndax wedd yàlla ak jaamu ay xeram loo lépp dafa mel ni ak lëndëm la ñoom nag dañoo ñëwoon ngir génne nit ñi ci lëndëm tàbbal leen ci ak leer te gi mooy gëm yàlla wéetal ko noon la ko sun borom di junjee ci alxuraan buy wax ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam naa ko kitaabun anzalnaahu ilayka li tuxrija annaasa min azulumaati bi isni rabbihim wa yahdihim ila siraati al asiisi al téere alxuraan bi dañ koo wàcce ci yow ngir nga génne nit ñi ci ak lëndëm yóbbu leen ci ak leer lëndëm gi mooy lan mooy jaamu gi ñu daa jaamu yàlla di ko bokkaale ak keneen ku bokkut ak moom mooy kéefar gi ñu nekkoon gëmuñu yàlla waaye leer gi nag mooy lan mooy gëm yàlla gëm goo xam danga koy teg ci di ko wéetal doo ko boole ak lenn doo ko boole ak dara doo ko bokkaale ak lenn kon nga gis ne bu dee bokkaale yàlla wala kéefar ni ko sunu borom di niroleeg ak lëndëm waaye gëm yàlla te sellal ko teg ko ci tawxiid nag mu koy niroo léegi ak leer kon képp koo xam ne yaa ngi jaamu suñu borom te di ko wéetal bokkaale ko ak kenn boobaa yaa ngi ci ak leer waaye ñi nga xam dañuy bokkaale yàlla wala na nekk ci ak kéefar kon ñooñ ñi ngi ci ak lëndam bu ko defee nag li nga xam ne moo nekkoon liggéeyu yonent yi te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jiitu ko kon mooy génn nit ñi ci ak lëndëm indi leen ci ak leer jële nit ñi ci jaamu ay xëram indi leen ci jaamu yàlla mi nga xam ne mooy kenn nit ñi moom ñu njëkk ñi dangay xool ba yàgg da nga da nga naa dañoo dof wala dañoo kannasoo wala xamul leen jot ndax ay doje ki xeer yoo xam ne yow yaa ko yettal sa bopp defaroon ko sa bopp ba pare wëlbati ko ni kii mooy sama borom di ko jaamu loolu moom kenn xamul lu muy niru bu ko defee nag yàlla jëmm la joo xam ne nekkul ku ñuy teg bët wala di ko gis waaye nag yebal na ay yonent yoo xam ne tegtal nañ ñu sunu boroom nekkul ku ku bët di gis waaye nag ku ñu war a gëm la ci kumpa bu ko defee kon loolu li nga xam ne mooy firnde ji mooy li sun borom wax ne fa man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan saaliha wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada nga gis ne Serigne Touba bi muy ubbi téere bii di masaalikul naan aaya boobu la ko ubbee muy képp ko xam ne wóor ko ni wóor na ko ni bisañ ci bis yi dana dajeek yàlla te lépp la suñ borom dige woon ak moom keroog dana ko ko fay te keroog dana wax ak dana wax ak sun borom képp ko gëm ni bis boobu dana ñëw na ko waajale ci di jëf jëf ju baax te moom bokkaale yàlla ak kenn jaamu gi muy jaamu yàlla na ko defal yàlla rek te bu ci bokkaale ak keneen kon bis la buy ñëw te mënta ñàkk te kenn ku nekk da nga wéet ak sa borom la nga diggaale woon ak moom dana la ko laaj kon nag fexeel ba waajale ko jëf-jëf ju baax te jëf ju baax li nga xam ne moo koy laltaay ba tax mu wér mooy gëm sunu borom gëm goo xam ni danga koy laltaay ba mu dëgër ci sab xol bu ko defee tawxiid mooy noonu kon mooy gëm yàlla ba noppi weet wéetal ko nga xam ne jaama gu nga koy jaamu doo ko bokkaale ak leneen te gëm ni suñ borom itam ak nguuram am na ci sañ-sañ boo xam ne kenn bokk kook moom li muy saytoo itam na ko noonu yàlla rek mooy buur bi nga xam ne moo mat a jaamu te jaamu gi nga xam ne yàllaa ko moom yellut itam nga koy jël di ko jëmale ci keneen ndax saa yooyu jaamu keneen yaa ngi wàcc yoon wa yaa ngi jaamu ko dul yàlla ndax bu ne jaamu moom yàlla lees koy defal kennal ak wéetal yàlla lees koy defal li nga xam ne yàlla ko moom saa yoo ko jëlee jox ko keneen boobaa yaa ngi tooñ koo ko waaye yaa ngi tooñ sa boroom itam ndax yàlla bëggul ko koy bokkaale wa ma arsalna min qablika min rasulin illa yuuxi ilayhi annahu laa ilaha illa ana faabudun amul benn yonent boo xam ne suñu borom mooy wax amul benn yonent bu ma mës yónni ci kaw suuf lu dul la ma ko digal mooy na nga wax nit ñi ni man yàlla may seen boroom man képp na ngeen ma jaamu te bu ma boole ak keneen ndax boo nee laa ilaha illallahu moom loolu lay saxal loolu tax kuy dugg ci diine ñu ne ko ni ngay duggee ci diine mooy nga seede ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah laa ilaha ni ñu koy tekkee na amul benn buur boo xam ne jaamu ga njariñ la ñàkk gaa jaamu lor la illallahu ku dul yàlla ndax dangay boole li ñu tuddee an nafyu wal isbaat boo nee laa ilaaha mooy buur amut mooy danga dàq benn buur amut boobaa maase nga dàq ñépp boo ne illaa nag saxal nga ba mu des kan allahuma yàlla loo tax laa ilaaha illallah fi ne mooy baat bi gën foor bi nga xam ne dafa ëmb lépp loo tax bi Sëriñ Tuubaa di wax naa sama xasiida yi da cee eh, yàlla da cee dugal mbootum laa ilaaha illallah da nga naa kon lépp mu ngi ci biir maanaam lépp tawxiit la ilaa tawaali fii yaquudullaahu asraara laa ilaha illa allaahu loo tax ñu ni laa ilaha illa moom boo ko xasee ba wax rek boobaa saxal nga kenn sunu boroom waaye ni nga ko saxalee nag ci wax na ko noonu koy saxalee ci jëf la yàlla moom nga xam ne ak jaamu yàlla nga koy defal yàlla te doo ci boole keneen ndax boo nee laa ilaha moom dàq nga amul benn buur illaa ba mu des dal di saxal allaahu nga xam ne bu ñu ko waxee kon loolu mooy al uluhiya bu dee tawxiid nag niñ ko xamee dafa am ay mazhab comme ni ma amee ci fiqh nga xam ni boroom xam-xam yi seen jàngale day wuute kii day dégg nii kii dégg nii kii dégg nii nga xam ne ay école la dañ naa kii ci école Malik la génn kii ci école Shafi'i yi naka noonu la amee ci tawxiid tawxiid ay école la ay mazahib la dafa am mazhabul la am na mazhab al ibadiya am na mazhab al matridiya naka noonu la amee mazhab al ashari bi nga xam ne mooy yoon wi nga xam ci la Serigne Touba jàngale boo déggee barki démb rek bi Sëriñ Muntaxa di def déclaration mi ngi koy wax naa war nañoo saytuwaat dëkk bi façon ba fexe ba façon njàng yi nga xam moom lañu fiy njàngal ak yarim wi ñu fexe ba delloo si njàngu njàngaleem Sëriñ Tuubaa te Sëriñ Tuubaa mboolem école yi ñu wax dafa amoon moom yi mu ci sukkandiku bu dee ngirum al euh, al imam moom la jël ci fiq waaye bu dee mbirum tawxiid mii ñu nekk na ngir mi mi ngi sukkandiku ci ngir mu ñu tuddee mashab al ashari ñu ci bokk ñu tuddee leen al ashaira nga xam ne moom dafa tënku ci yoon wu leer naññ bu ko defee dafa nekk mashab boo xam ni mboolem nit ñu baax ñu ñu xam nga xam ne ñooy ahlu tasawuf ñoom ñëpp boo xoolee dañoo jëloon yoon wi ndax li mu nekkee yoon wu leer muy mashab boo xam ne bu leer la bu ko defee kon bu ñëwee ci li nga xam ne mooy cosaanu tawhid ci asaari yi maanaam bu fekkee ci ma masabal asaari ñoom dañ cee am ay cosaan yoo xam ne ci lañu tënkee tawhid mooy lan ñoom dañoo wax ni usulu tawxiidi arbaa tawxiid bu fekkoon dañ koy xaaj di ko séddale di ko def ay cosaan ñeenti li ñeenti yi rek la nga xam ne génn ko yépp nag boo xoolee dafay aju ci nit ki li mu war a xam jëmm digganteem ak boroomam am ko daa wax ni nit ki saa buy doog a jóg te yàlla dénk ko am xel war naa posé question boppam yàlla moo mat te lépp luñ naa am nag mat yi tam yàlla moo ko matal te mbindeef yi bu fekkee dañ naa kenn mat na mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla def ki gën a mat te léeg-léeg sax mu daa wàcci di wax ak moom naa ko def nga nangam yàlla jéggal na la ko waaye loolu li muy wane rek mooy kon suñu borom rek moo mat suñu borom ak matam lim koy wane mooy manqué doomu aadama yi saa yu defee saa yu doomu aadama defee ak manqué te maanaam tuubaat jëm ci suñ borom yàlla danaa kon nangu na ne moom kat ko manqué la te nangu naa tuub maanaam jëm ci man xam ne man maay ko mat njigéen mooy ñi nga xam dañuy def njuumte ba noppi maanaam di tuub ndax ku matul rek mooy def njuumte waaye boo defee njuumte boobaa da ngay delluwaat ci sa borom kon li muy xam le mooy yàlla rek mooy ki nga xam ne moo mat lam yaku zaatullaahi jalla jurma man zannahu jurman fa abda jurma yàlla rek mooy jëm ji nga xam ne nekkul jëmm ju ni ne léng maanaam ami tànk ami loxo comme niñ ko xamee te képp ko jàpp ne yàlla jëm la joo xam daf ne léng di nekk ku ñuy làmb ko daj di ko xool di ko gis nee na kooko dafa weddi suñu borom am na bàkkaar ci loola loolu mooy lam yaku zaatullahi jalla jurma man zannahu jurman fa abda jurma képp koo xam ne nag fas nga leneen ci sun borom lu bokkut ak lii boobaa dangaa bokkaale yàlla te bokkaale moom dara yéesu ko bokkaale bokk na ci liy gën di tegtal ne bakkaar bu mag la mooy yàlla bakkaar yépp la wax ne mën na koo jéggale ba mu des nag bàkkaaru bokkaale nee na kooku moom bàkkaar la boo xam duma ko jéggal ko yàlla sàkk xanaa ku ko tuub tuub gu sell tam dëggu ci yow wa yaxfiru ma duna zalika liman yasha nga xam ne da koo génne teg ko fee daan ne bokkaale yàlla moom lu dul moom leneen loo mën a jëf bu neexee yàlla mën na koo jéggale waaye boroom xam-xam yi niñ ko niñ ko niñ ko taawilee dañuy wax ne mooy bàkkaaru bokkaale yàlla du ko jéggale ci lu dul tuub boo ko tuubee tuub gu sell nag te la nga nekkoon nga génn ca boobaa suñu borom mën na la ko jéggal bu ko defee bokkaale ak weddi yàlla day baat yu xaw niroo waaye nag dañoo wuute ci maana ndax bu dee bokkaale dañ naa mooy ashirk bu dee bokkaale yàlla arab naa ko ashirk waaye bu dee yéefar nag moom mooy de alkufr te mooy wedd yàlla wedd yàlla mooy lan mooy ki nga xam ne moom dafa gëmul yàlla aslan nga xam ne moom yàlla am naag yàlla amut moom moom da koo tege fale danaa yàlla amut loolu mooy kufr loolu moom mooy yées bu dee bokkaale nag mooy ki nga xam ne xam na ne yàlla am na <coughs> d'accord yàlla am na waaye nag yeneen yàlla am ni moom mooy almasihi yoon nasaraan yi nga xam dañoo gën ni moom ñett yàlla moo am tasliis danaa al abu al ab al ibn ruuxul xudus jibril yàlla la aysa yàlla la yàlla yàlla la nga xam dañoo jël yàlla def ko ñett waaye teewut ñooñ ba tey suñu borom def leen a dugal ci keppaarug ñi nga xam ne ñoom itam dañoo wedd yàlla nga xam dañoo wedd ne suñu borom amut laxad kafara lasina xaalu inna laa saalisu salaasa ñi nga xam dañuy ñett ñettal yàlla naa naa yàlla ñett la suñ boroom daf leen ni limee ay yéefar ndax seenu pay mooy la suñ borom fay yéefar ya rek ñooñu la Sëriñ Tuubaa doon waxal bi mu naa yaay jumlatan qad sallasu bi dalalihim man lam yakun waladun lahu aw waalidu yéen ñi nga xam ni yéenay jël yàlla di ko ñett ñettal naa ñett yàlla moo am ak di jox yàlla wayjur ak di ko sàkkal doom dëgg dëgg nag yéen a réer boo ko defee kon sir ko mooy li nga xam dafa bàyyi ko ci ab jullit sirk ba tey am na ci loo xam ne yonent bi tuddi woon as sirkul asxar te mooy loo xam ne yàlla moo ko baaxoo moom nga jël ko di ko moomale keneen wala di ko def te yàlla taxut nit a ngi nii koo xam ne tey nit a ngi koo xam ne tey am na ngantul julli <coughs> jigéen ñi nañ ma baal waaye léeg-léeg ñu def ko nag léeg-léeg ñu dem ci barab am nañ ngant mënuñoo julli waaye gis nañ ñëpp di julli man mu ni man moom duma toog fii wax dëgg yàlla naa julli ni ñëpp rek boobaa kan moo tax ngay julli ndax yàlla tax ngay julli yàlla taxut nit a ngi nii fas yéene julli ñaari rakka nit ni tëll rek mu fas yéene ko def fukk boobaa kon day mel ni yàlla taxatu ko di jëf la muy def lépp ngir njistal diw moo mën a jaamu yàlla bu ko defee loolu la ñuy tuddee njistal njistal nag la la la ko yonente bi tuddoon mooy asirkul asxar mooy bàkkaale bu ndaw ndax julli moom yàlla lañu koy defal woor yàlla lañ koy defal saa yoo koy def te yàlla taxut rek boobaa léegi ak bokkaale dugg na bokkaale sunu borom ba ci tey ji nañ ma baal waaye dem ci maam man yi nga xam ne fi mu nekk nii siiw na lool boo dee ma ci suñ suñu saaliw li xalaas mi nag nga xam ne xëy na ci maam mi la waaye moom ci alxuraan la nekk léeg-léeg ñun la boo demee na nga saraxe nangam yow ba ngay saraxe xam nga saraxe lu bari tuyaaba la Sëriñ Tuubaa nee na li gën a ndaw ci ay tuyaabaam ci lim lay fegal ci lim lay fegal maanaam mooy feg laa ko koo xam daa naroon a ñëw ci yow moo gën a tuuti ci la muy def waaye fi mu nekk nii bari na ñoo xam dañuy saraxe waaye yàlla taxut lan moo tax ngir li ñuy yóotu nañ ci mën a jot wala boog li nga xam ne moom moom lañ bëgg maanaam mu wattandiku leen loolu ne leen mooy moo tax ñu koy def waaye yàlla taxut ñu koy def day dem ba mel ni yàlla amatul yow léegi say bunt ubbe na nga ne léegi cet moo ma jàpp wala dañ maa liggéey nit ko jóg rek dañ maa liggéey wala cet dama jàpp loolu nag wax dëgg yàlla daanaka maama ni ñoo koy teg nit ñi yow dañ laa liggéey ca tala jàpp léegi moom yàlla anamu léegi day dem ba yow léegi maanaam lu la gaar lu la xusi rek nga ne naa dem ca maaman ba bu ma ñàkkee dem ca maaman ba bu may lijjanti dara muta naa dem ca maaman ba léegi ana yàlla loolu boo xoolee ba tey dafay dugg ci bokkaale mooy loo xam ne yàlla lañ ko baaxoo woon ñaan ak dellu ci moom léegi nga bàyyi ko fa di dem ci keneen ñi gëm yàlla te te gëm gi ñu gëm yàlla nee na raxuñ ko ak bokkaale foofu zolm bi maanaa ashirk ñi gëm yàlla te bokkaali wuñ ko yàlla def leen defal sécurité mooy dañuy mucc yàlla dana leen teg ci aw yoon tam ban bokk ci ñi nga xam dañuy gindee ko dañoo tegu ci aw yoon sëriñ Tuubaa ba tey wax na ko wa man tawajjaha lahu muwahhida wajadahu bilantihan multahada képp ku jublu yàlla te weetal ko def ko muy kenn dana xam ne yàlla rek mooy weeruwaay bi nga xam ne ko mata weeru la ci moom ndax ku wéeru ci yàlla weeru nga ci koo xam ne doo daanu ba mukk mu ne ko wéetal yàlla def ko muy kenn da nga xam ni wéeru nga ci koo xam ne doo daanu ba mukk wa waxidu rabbal wara majida yaxut lakum maxan ridan wa juuda ragal leen yàlla mi nga xam ne mooy borom mbindee fi te nekk ko tedd bu ngeen ko defee yàlla dana leen wombatal ngërëmam yàlla dana leen may ba ngeen yàlla dana leen may ba du ngeen soxlaal kenn dara loolu mooy bi maana aljuud tëje ko nafon la aqaidi xurujul xalbi min kulli kufrin muminan bi rabbi li nga xam ne mooy njëriñu pas-pas dëgg te mooy tawhid ndax ñii dañ na ko tawhid ñii naa ko aqida waaye liy njëriñam mooy nanga fexe ba sab xol moom nanga ko génne ci lépp loo xam ne ak kéefar la ak lépp lu dul yàlla fexe ba wéetal yàlla def ko muy kenn boo ko defee yàlla dana la fay mboolem na nga xam ne yàlla dig na ko ñu baax ñu wéetal yàlla itam suñu borom dana la ko jox te yàlla li nga xam digg na ko ñi nga xam ne ñoo ko ragal mooy dana leen ubbil bunt dana leen defal mucc ko àddina ak alaaxira te jàpp naa nit ki itam sakkuwul lu gën lool kon yàlla dimbale ba boole yi ci ñi nga xam ne ñoo koy wéetal yal nañu yàlla dollee fayal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom la ñuy fàttaliku te yàlla dogal itam yàlla na suñu borom def ñu yàgg koo fekkee yàgg koo màggal di siyaarawaat bu baax a baax mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew ñëpp te di leen jéggalu kàddu yi bu baax a baax lépp loo xam ne njuumte la sunu matadeeg sunu gàtt xam-xam la lépp lu ñu mat lépp lu ci mat ñu sante ko sunu boroom ñu xam ne rek nit kee matul day fàtte buur yàlla rek mooy matal tey àtte laa biire ak bëgg lu baax ak yeete moo tax di jóg di wax di laa biirante yal na nu am saxaatata daayre ni kiltayhima bi jaahi sin nurayni yal na nu gis keroog Serigne Touba naa ba àndoon ak moom tàbbi biir janaana wa axiru da'waana an alhamdulillahi rabbil alamin salaamun minallahi alayna wa alaykum wa rahmatuhu wa barakaatu. kon lu mat di fàttali la waaye lu mat di jéem a xam lu la ba xam ndax it day eh, bu am solo ndax ni ko waxee ci biir waxtaanam dégg ngeen mu wax ne bokk na ci bàkkaar yi gën a mag ndax xamuñu bàkkaar boo xam ne suñu borom wax na ne du ko jéggale bépp bàkkaar bu nit ki def rek suñu borom mën na koo jéggal ci lu dul sax mu koy tuub waaw waaye eh, bokkaale maanaam eh, li ñuy wax bokkaale moom eh, nit ki tuub ko tuub gu sell rek mooy tax suñu borom jéggal ko te gis nga ne kon bokkaale ngir nga mën cee mujj faw nga xam lan mooy tawhid nga xam ko xam lan mooy bokkaale kon loolu leeral la ci leeral yu am solo yoo xam ne ñaan suñu borom defal ñu dégg ak topp di sàkkuwaat ci mboolem baax ñu gën a teewluwaat kàddu yu baax a baax a baax maanaam gën a wàññi waxtaan wi rek xale yeeg yu mel noonu ndax mel ne ni waxtaan yi am solo waaye nag dégg gi teewlu gi dafay am solo lool. ñu ngi siyaare mbokk yi fi teew yëpp sëriñ Ndam Mbacke mi nga xam ne mi ngi ci jotaay bi rek sëriñ Xaadim Mbacke ak sëriñ Mamour Mbacke ak suñu sooy bu jub ak mboole mbokk yi teew yëpp daal. di siyaarewaat suñu waajur yi nga xam ne ñoom ñoo fi toog nii soxna Anta Mbacke soxna Momi Mbacke ak soxna Ben Mbacke ak ñi fi nekk ñëpp di leen siyaare kon xam naa dañuy daal di jox kàddu yi Serigne Saliou Mbacke mu ñëw ñun ci Seydina Ousmane di sahabatu rasul boobu nga xam ne bokkoon na ci jàmbaar yi bokk ñi nga xam ne mat nañu fàttali ko ngir seenu taxawaay ci lislaam mu waxtaan ñu ci rek ab euh, diggante boo xam ne du gudd ndax ku nekk xam na ne mi ngi xaw a guddi te euh, itte yi xaw naa bari kon Serigne Saliou Mbacke ñu ngi lay jox kàddu gi bisimilah. aouzu billahi mina shaytaani rajim. bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala asrafi alambiyaai walmursalin sayidina wa maulana muhammadin ilmakin wa ala alihi wa sahabatihi sawi ridwani wa tamkin mbokk yi ginnaaw bi ñu sante sunu borom subhanahu wa taala julli ci saydul wujud sallallahu alayhi wa sallam sant bu baax a baax a Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ñoo ngi ñaanal Cheikh mun taxa mu yàgg fi lool ba li mu bëgg a liggéeyal sëriñ bi lépp mu àggale ko ca ko bëggee ñaanal bu baax sëriñ Cheikh Ismaahila xalifa borom Cham sun borom yàggal ko fi moom it ba li mu bëgg a liggéeyal sëriñ Touba ak sëriñ Mor Soxna Jaara lépp mu àggale ko ca nam ko bëggee noo ngi nuyu bu baax a baax sunu waajur yi nga xam ne ñoo ne ci baas bi di sunuy yaay di sunuy bàjjan muy soxna moomi Mbàkke ak soxna Anta ak soxna Mbeen ñuy sunuy waajur di sunuy bàjjan kon new leen di nuyu bu baax di leen ñaanal sunu borom defal leen dëgg-dëgg tawfeex ci barkeb sëriñ bi di nuyu bu baax a baax sëriñ daam Mbàkke mi nga xam ne mooy kilifa jotaay bi ak njaboot gi ak waa kër gi yëpp Cheikh Mourtala ak suñu Ousseynou ak suñ Fallu suñ Abdou ak kilifa yi fi nekk yëpp suñ Xaadim ak suñ Mamor di jaajëfal bu baax sëriñ naa Mbàkke gànnaar ci xam-xam bu rafet bi nga xam ne wàcce na ko fii ci tawant it ak maytuloo nit ñi sirk muy bokkaale suñu borom dogal mu waxtaan fi waxtaan wu am solo boo xam ne xuma nit ñi déglu nañ ko xuma déglu wuñ ko waaye lu am njariñ la lool te am solo ginnaaw loolu ñuy nuyu soxna Bintu Muhammad di ko jaajëfal ci taxawaay bi mu am ba taxawal lii ndax mel ne ne néew na lool jamono ji jigéen ju mën a laxasaayoo yi ngir liggéeyal islaam lu toll nii mu mel ne lu bari ci jigéen ñi bu ñu amee lëf li ñuy njëkkatal mooy ceen gu ñuy takk wala yére bu ñu sol wala dàll wu ñu sol waaye damay tàntal sayiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam loolu moom jafe na lool ci jigéen rawatina ku am at yi mu am kon soxna Bintu ñu ngi lay ñaanal suñu borom yàggal la fi lool te dimbaleel la boppam te jàppale la bu baax a baax te taxawu la ñu ngi lay jég jéggalu guddee giñ guddee nag dañoo nekkutoon ci dëkk bi bu pare bis bi xaw a xat lool ci ñun waaye nag fuñ mën a dem fee ko gën ci ñun ndax fuñ mën a dem it defiwuñ fa lu lu ëpp lii ñuy def te yaay sunu mbokk yaa ñu gën a jege ci deret yaa ñu gën a jege ci lépp kon bu ñu fukk soxla woon nga soxla ñu dañuy bàyyi fépp te ñëw fii ci yow mu mel ne thème bi nga tànnoon tey muy Seydina Ousmane mi nga xam ne bokk na ci ñi nga xam ne ñoo gënoon a jege yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu leen di wax ne ñu leen di wax les compagnons des prophètes Mohamed sallallahu alayhi wa sallam di ñi nga xam ne ñoo gën a liggéey ci islaam mu bokk ci ñi nga xam ne mboolem lu yonent bi diggee ci ay njariñ rek ci saxaaba yi Usmaan a nga ca biir waaye waxtaan wi comme xas na guddi tey wax dëgg sonn nañ lool ndax jóge dañoo jógee dëkk bu soree sori dañ koy tënk ci ñetti ñetti ñetti point rek point bu nekk ñu leeral ca tuuti te jéggulu mbooloo mi point bu njëkk bi dañuy waxtaane kan mooy Ousmane ndax nit njariñ lu mën a am boo boo xamut ay jaaruwaayam pour nga xam ci moom dara dina jafe kon point bu njëkk bi dañuy wax dañuy waxtaane kan mooy Ousmane ñaareelu point bi ñu wax yan réalisation la def ci ak xilaafaam bi mu nekkee amirul muminin moom Ousmane ñetteelu point bi mooy gaw gi ñu ko gawoon ba rey ko ak manifestation yi nga xam ne moo amoon ci jamono jooju ba àgg ci gaw ko ay fan ba tëb miir bi dugg ci biir ba rendi ko moom Ousmane kon ak ni ko yenn saxaaba bay seetaane woon ak li waraloon jëf ji danañ ci ñëw ci lu gàtt kan mooy osmaan Ousmane waajuram bu jigéen mi ngi tudd Arwa arwa moomu kon moom ci wàllu yaayam la gën a jege yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax bu dee ci wàllu yaayam jarbaat lay doon ci yonent salaatu wasalaam ndax arwa bintul bayda moomu bintu abdul mutalib ibnu haasim la te ku ne xam ne ne bu dee côté boobu jarbaat lay doon ci yonent salaatu wasalaam ndax yaayam kon doomu bàjjanu yonent bi lay doon sallallahu alayhi wa sallam ba tey waajuram góor Usmaan ibnu Xafaan lañ koy wax Usmaan ibnu Affaan nu Abil Aas ibnu Umayyata ibnu Abil Sams ibnu Abdul Manaaf ibnu Xusay gis nga kon wëriwaat na ba bokkaat ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam foofu ci ay maam nee naa la nag bu dee ci wàllu yaayam la ko gën a jege ndax daanaka ab jarbaatam lay doon bu dee wàllu baayam gis nga maam yooyu ñu bokkaat kañ la Usmaan gane àdduna Ousmane mi ñuy waxtaanee mi ngi gane àdduna ci 676 ci juddug Iisa ibnu Maryama ci juddug Seydina Iisa loolu mooy juróomi téeméeri at ak juróom ñaar fukk ak juróom benn ginnaaw bi yonente yàlla Iisa gane àdduna loolu mu ngi tolloog juróom benni at ci juddug yonente bi alayhi salaatu wasalaam muy xaamu fiil xaamu fiil nag bu ñu nee xaamu fiil am at la moo xam ne histoire da cee am ba alxuraan wàccee ci aw saar saarul la mu muy kañ wax abraha abraha benn benn colonel la woon mënees na ko tudde colonel mënees na ko tudde jaraaf ci benn buur bu nekkoon Éthiopie Habasa waaye dafa ko fonkoon daa fonkoon kilifaam googu loolu moom abraha ba ne ko dinaa la tabaxal benn église bu rafet boo xam ne nii arabe yi di demee ca Kaaba gi di fa jaamu danañ ko bàyyi di jaamu ca église bi loolu nag di ko benn julli déggee mu naqari ko lool ca la dem taqal ayib ca église boobu ginnaaw bi ñu ko defeere ba mu rafet loolu metti Abraha lool mu ne damay ñëw mabbi ci Kaaba gi nga xam ne moom la ñuy wër ñoom dafa dafa rey seen xar dafa rey seen i nag comme ni ko suñu seexoon doon waxe léegi Kaaba gi naka jekk dañ ko warmaaloon daa fa jaamu seeni i daal di takk xare boo xam ne ay ñay rek a ci nekk ñay wu ne mbooloo ci yéeg ñu jëm si ci kaaba gi ngir màbbu si ko waaye booba Abdul Mutalib ne woon na ko kaaba gi am na beram am na beneen beroom bu koy aar bu dul man waaye bi mu ñëwee bu jub ko si la suñu borom yabal ay picc kenn ku ne ŋànk ci saw sàll xeer tàng jër natt ko ci kenn ku nekk natt ko ca kenn ca ñay ya ba mbooloo ma daanu ñenn ña faatu ña ca des daw loolu la alquran di wax alam tara kayfa faxaala rabbuka bi ashaabil fiil alam yajal kaydahum fi tadalil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihi bihi jaarati min sijil dégg nga kon juróom benni at ginnaaw xew-xew boobu ci la Ousmane ibnu Affan mi gane àdduna lan mooy ay jikkoom moom Ousmane defe naa ne nag lépp solo ci waxtaan wi soxna Bintu bu ko taamoo nee nañ waxtaan wi Ousmane jikkoom yi am na ci solo lool dañoo wax ne borom jikko yu rafet la woon maam Ousmane ku yiiw la woon maam Ousmane jëmm ju tedd la woon maam Ousmane waaye ku woyofoon ab xol la te gaaw a jooy loolu bu ñëwee ci biir waxtaan wi danañ ci danañ ci leeral ku bari woon kerse la maam Ousmane ibnu Affan ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf koo rusoon soxna Aysa dafa nett li ne dafa am bis yonent bi nekk ci benn nekk toog waaye yére yi mu sol dafa aju ba tànk bi di feeñ moom alayhi salaatu wasalaam nee na Abu Bakar dugg si na ci néeg bi yonent bi bàyyi noonu tànk bi di feeñe Omar ibnul Xataab dugg si na ci néeg bi yonent bi bàyyi noonu tànk bi di feeñe waaye Ousmane daa dugg ci néeg bi rek yonent bi alayhi salaatu muuraat tànk bi bi mu ko muuree kenn ci ñeneen woon ci néeg bi ne ko waa yow ñi fi nekk ñi fi jaar ñépp Omar ibn Khattab ñëw na fi Aboubacar ñëw na fi waaye defaraatoo sa toogaay Ousmane ñëw rek nga defaraat sa toogaay waaye yonent bi dana leen ndax du ma rus koo xam ne malaayika yi dañ ko rus ndax du ma rus koo xam ne malaayika kon loolu ci ngay déggee ne nit su bëree kersa ci mbooloo ci kanamu jullit ñi rek malaayika yi dañ koy rus te ko malaayika yi rus yàlla rus la yéen salaa salaam moo ne ndax du ma rus koo xam ne malaayika yi dañ koy rus te boobu Ousmane la doon waxal dégg bokk na ci ay ngëneelam moom Ousmane moom rek lañ xam ci àdduna ku mas denc ñaari doomi ab yonent ku mas a yor soxna ñaari doomi ab yonent ci Usmaan rek lañ ko mas a gise yonent bi da koo dencaloon kañuy wax Roqaya loolu booba nubuwa gi sax ñëwagut kon ku yàggoon a wóolu Usmaan la waaye biñ tollee ci xare Badar ci guddi Badar ya ca la Roqaya moomu faatu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dencalaat ko Ummu Kalsum ginnaaw bu ñu jógee Badar kon ba pare yonent bi teg ci wax ju rëy daan ne amaatoon ay doom yu jigéen ñuy faatu de danaa ko may Ousmane ba mu jeex loolu nag jàpp naa ne kóolute foofu la féete te ku ne xam ne ne li xew jamono jii xewitoon booba léegi da léegi di nga may nit ngir alal di nga may nit ngir ab taar di nga may nit ngir dara waaye ñoom yonent yi daawuñu doxee noonu lépp lu ñuy jëflante ni rek yàlla rek a tax te yonent bi nee na su ma amoon yeneen doom yu jigéen dana ko may Ousmane ba ci ay ngëneelam Ousmane jàmbaar la woon ku bëri woon alal la ndax dafa daan commerce wax nañ ne sax moo moog Aboubacar ñoo bokkoon daa commerce di jaay ay tissus ñoom ci loolu lañ daan commerce ba bëri alal lool moom Seydina Ousmane waaye alalam lépp nag dépassé na ko dépassé na ko ci yoonu yàlla loolu bu ñu agsee ci waxtaan dana gën a leer ku amoon ngërëmul yonente bi alayhi salaatu wasalaam la maanaam ñeent ñi yonente bi alayhi salaatu nga xam ne ñoo gën ci xam nga ne saxaaba buñ ne saxaaba ñoom ñëpp a baax. mooy ku masa teg bët yonente bi sallallahu alayhi wasallam te toppoon ko rek saxaaba nga kon loolu bari na lool waaye ñeent ña ca gën Usmaan leen ñetteel ginnaaw yonente bi sallallahu alayhi wasallam Abubakar a gën ci nit ñi ginnaaw Abubakar loolu mboolem ñëpp maase nañ ci nangu ko Omar ibnul Xataab topp ca Usmaan ibnu Affaan topp ci ci ñi gën ci nit ñi dégg nga Usmaan bokk na ci ay ngëneelam ñaari gàddaay yëpp dem na ca muy gàddaay gu njëkk ga dem Éthiopie ca la bokkoon waaye gàddaayu ñaareel gi muy dem madinatu munawwara ca yasriba fekk fa yonent bi alayhi salaatu salaam tamit ca la bokk bi mu tuubee ku sonnoon la moom Ousmane xam ngeen ne dafa bari woon alal lool te yaakaaru bi mu tuubee nijaayam di ñu wax abil xaas daana ko yeewu yeew gu metti même yaayam di arwa ku sonaloon Ousmane la ci bi mu tuubee ngir topp yonent bi salaatu salaam ngir bëgg mu dëpp waaye leeru ngëm bu ne la bu la xasinee carax nit mënatu laa sonal mbaa mu neex la ba tax nga dellu ginnaaw surtout jaxasoog ku rafet jikko ba mel ne yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam Ousmane bokk na ci ay ngëneelam mboolem xare yi yonente bi xare yëpp demoon na ci ba mu des Badar Badar rek la teewut te la tee mu teewe ko soxnaam soosu di roqe yàlla doon toppatoo ci ab feebaram dégg bokk na ci ngëneelu Ousmane moo njëkk a nekk ambassadeur yonente bi alayhi salaatu salaam li ñuy wax ambassadeur ndax booba yonente bi da doon dugg si Makka di umra si di siyaara si bi mu ñëwee ba Hudaybiya waa Makka xamal ko nekk doo fi dugg bëgg faa indi ab xeex ba yonente bi sax wax na wax juré daan ne cey waa Makka ñoom de fu ma tourné ñu di ma kar ngir xeex ak man te xamuñ ne lii yàlla wàccee du ma ko bàyyi mukk li sama yàpp yaram daggu tawut ku amoon ak dogu la moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa képp ku koy topp mbaa koy liggéeyal war ngaa am dogu ci loo nekk bi loolu ñu tere ko dugg Makka mu taxaw Hudaybiya daal di yebal Usmaan ne ko demal ma comme yow ci Banu ci Banu Umayya nga bokk ab Quraysh nga kilifa Quraysh may ci Banu Umayya la bokk kon danañ demee diir bu gàtt ci naafiq yi rek daal di siiwal ne rey nañu rey nañu Usmaan pour nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ko biñ ne rey na Ousmane dafa jug dafa jug taxaw moom moom Seydina Mohamed ku amoonug dogu la daan ne Ousmane di Quraysh bokk ci Banu Umayya waa Banu Umayya jiita jiita Makka ma yónnee ko fa muy sama ndaw ñu rey ko daal di daal di yonent bi daal di giñ naa ci yàlla mi ma yónni ci ak dëgg ne du ma dëpp mukk te dugg ma Makka xeex ak ñoom daal di teg nii loxoom jël beneen loxo bi teg ci kawam daan ne man jaayante na Ousmane jaayante na daan ne na ngeen jaayante ci la saxaaba yépp jaayante ci dee te duñ daw duñ xiif duñ mar duñ jàmbat loolu lañ jaayante loolu la alxuraan di leen sant ne radiya laqad radiyallahu anil mu'minina is yubayyi'unaka tahta sajara sant googu yàlla di wax ne sant na leen muy waa Hudaybiya waa ahlu bayhatur ridwan mooy ñi nga xam ne ñoo jaayante woon jaayante googu Mor Jaara ak Sëñ Tuubaa bi ñu fanaan naa naafila dalaguñu alxuraan lu leen ko may taxawaayu waajur wu jigéen bu baax waaye waajur wu woo xam ne boo jógee ca ca école ba ñëw da lay tëbbal tëggal ay poojam ngay fecc fooy baaxee fooy baaxee boo màggee tëgg ak fecc rek ne sa bopp bi jigéen ñi way wu génn ñu mokkal ko te xasida ak sindi di kenn mokkalu ko ci loolu mooy dëgg soxna jaara xar na gaalam ngir seggal siñ mor siñ mor ant kafe te boobu daa taw matt mi tooy jigéen ñi waxuma la gaal waaye koo ci takk jëndaloo ko aram wala mu ne sa yaay mooy njëkk na yoruñ la sa yaay mooy njëkk na yoruñ la te xanaa nag ku mënta xar xar xaru gaal mën a sarse ab gaas ah bàjjen moom gaz bi jeex na rongu dañ lay bàyyi ba ngay aj ñun la gaz bi jeex na nga far suur moom daa xaroon ak gaalam ngir segg kafe yow boo mënta xaru gaal xanaa mën a sarseb gas dafa bëri yoo xam ne mënatuñoo am yu baax la doom yu baax yéen mag ñi daan am mënatuñ koo am ndax li ko waral mooy seeni jikko rafetutul seeni jikko baaxutul te daa am fu wàllu yu di wàcc am fu wàllu yu di wàcc am na ñoo xam duñ jur wàllu yu ba ilaa yawmil baax kon nit dangay xam li nga am lu mu doon nga góor góor lu ci lu baax kon soxna Bintu lii nga nekk rek moom la fii nga toll nag dinga nga dégg lu ne waaye bay boo sa ginnaaw gii nga bind ci sama fu sa jëb yi nga bind ci merci ndax lu ne di nga ko dégg moom di nga tëb danga di nga dégg da ngaa tëb jànq dem ci meer ndax mënuñoo comprendre jigéen ko ndaw gi jaamu yàlla sëñ bi fu di fu di quatre vingt musulman di réew moo xam ne quatre-vingt-quinze musulman lañ wax te mënuñoo comprendre jigéen ju ndaw ji jaamu yàlla kon lii nga nekk ni la jàppal rek taw bàyyi. waaw kay jërëjëf sëriñ Saliou Lilaas defe naa ne eh, waxtaane am na solo lool defe naa ne saaba bu tedd boobu nga xam ne moom lañ doon waxtaane muy Seydina Ousmane defe naa mboolem ñu doon teewalu rek ku nekk dolli ko waan nga ci ci ak njàmbaaram ci ak taxawaayam ci lislaam ba tax na ku ne xam na ni kon day mujj nekk nag royukaay ci képp koo xam ne rek jàmbaar nga te fas yéene nga teg sa tànk ci fa ko saaba yi toppoon yonent bi tegoon ndax ñoom kat dañuy ay jàmbaar yoo xam ne gis nga ne saa booy julli ci yonent bi rek da gis ne da nga ci ay saxaabaam waaye saa yu fàttaliku yonent bi noonu la ñu a fàttaliku ay saxaabaam ndax ñoom ñëpp lañu woon ay jàmbaar di ay royukaay yoo xam ne seen taxawaay bu am solo jaayoon seen lépp lépp jënde ko gërëmal suñ borom subhanahu wa moo taxawoon lislaam te yegg fi mu yegg ndax ku nekk xam na ne seen i jamono ngir taxawal lislaam moom bakkan la doon laaj kon ñoom kon waxtu nekk dañ leen wax di delloo njukkal di leen bàyyi xel waaye di leen rey ndax ñu ñuy ñooy suñuy bàyyi ci diine kon def naa ne thème tànnoon ci taxawaayu soxna Bintu Mbàkke am na solo lool te it kiñ ci tànnoon dénkoon ko muy suñ saaliw defe naa ne ku ne xam na ne euh, réccuñ ci dara ndax niñ ko doon séentoo defe na ko mu kaw njort waxtaan wi am na solo te it na ko ba xam ne lépp fi njariñ la kàddu gu ci daanu rek day doon loo xam ne les mën a roy la waaye lu ñu war a mën a lu ñuy fàttaliwaat seen taxawaay la ñoom saaba yi am na solo loolu nga daane la ko ci soññe bu am solo boobu Euh, muy ci mbokki soxna yi muy soññe bu am solo boo xam ne ñu koy waxee diine moom ñëpp la war maanaam euh, islam moom góor ak jigéen ñëpp rek ku ci nekk rek am na taxawaay bu mu la sant boo xam ne boo ko taxawee rek société bi dana jag mooy taxawaay am solo yooyu ndax ki nga xam ne mooy ki euh, école bi njëkk ci njulit bi moom mooy waajuram kon moom am na taxawaay boo xam ne moom moo ko moo ko war ci kanam njaboot gi te képp koo gis rek jigéen la bàyyi ko kon seen taxawaay moom waxtu wu nekk rek dañ ko war di fàttalee di ko soññee loolu moo sabab mu daane lay kàddoom ci loolu kon am na solo lool ñu ngi siyaarwaat ñëpp di rafetlu teewaay beeg teewalu gi ndax baas bi ku ne xam ne jotaay bi xaw naa yàgg tuuti tey it euh, xaw naa tàng waaye nag euh, lépp rek tawfeex la te yaakaar naa ko fi nekk moom am nga fi yóbbul bu doy sëkk boo xam ne mënees na ko yóbbu la bañ bokkaat fi teewen teewen yàlla fekke fekkewaat euh, balaa ñu tëj jotaay bi nag ñu euh, jottali kàddu yi soxna Bintu mi nga xam ne moom moo wootee euh, bis bu am solo bii di gàmmu ngi fàttaliku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne mi ngi sant mboolem mbokk yi nga xam ne bàyyi nañ seen te yëpp ngir bis bi tàmbalee cant boobu nag ci waajuram yi nga xam ne ñoom ñoo toog ci wetam nii di soxna Anta Mbàkke ak soxna Moome ak soxna Mbeen ak mboolem waajur yi ci kër gi soxna Bintu Lo ak mboolem euh, mbokk yeeg mag yeeg rakk yeeg dëkkandoo yi ñëpp mu ngi leen sant bu baax ndax ku nekk ñëw ci bis bi rek xam nga ne euh, ñëpp ci bokku jàpp ba lépp jaar na yoon ku ci bis bi xam nga ne bis bi taxaw nañ ko moom borom bis bi na ci li mu am lépp def ko ci waaye da gis ne ñi nga xam ne ñoo ko ci doon gunge it maanaam leen nañ ko bis bu baax a baax lépp jaar na yoon te taxawaay beeg lépp am na solo nee na gis na ko ngi leen sant bu baax a baax di leen wax ne liggéey bi moom ñëpp ko bokk ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku ne xam ne yonent bi ñëpp la kon moom xëy na moom la suñu borom eh, defal tawfeex mu ubbi bunt bii rek eh, nekk ci bopp bi waaye nag ñëpp la ci woo te ñëpp la ci fas yéene àndal kon mi ngi ci tàllal loxo ñëpp ñu bokk ànd ak moom ci liggéey bi eh, waxtu fu mu leen soññee rek ngeen bopp ànd ak moom te xam ne li muy laaj li muy soññee lépp ngir bis bee tax te képp ku ñëw ci bis bi rek xam nga ne lii moo waraloon kër kër ji ak euh, coono yu bari yi ci at mi yëpp. Euh, kon loolu nee na mi ngi ci soññ yëpp di leen ci sant nag ci lu weesu bu baax baax di leen soññ ci liñ jëm ngeen gën a bàyyiwaat xel daayira bi nga xam ne sos na ko muy daayira bi nga xam ne moom mooy taxaw bis yi subhaana la si asra daayira boo xam ne na ko waaye bokke soññi ci bokk ñëpp di leen sant nag seeni taxawaay bu baax a baax ndax li jamonoy xat-xat lépp rek teewut daay rek moom waxtu ne yéen a koy bàyyi xel nee kon mi ngi leen sant bu baax di leen gërëm di sant it eh, Serigne Modou Mbacke mi nga xam ne moom mooy xalifa Serigne Sama Sulo ak mboolem njaboot gi ñëpp ñëpp taxaw nañ ci bés bi ñuy sant ñëpp dëkkandoo yi góor ñeeg xale yi ñëpp ku ci nekk rek eh, yaa ngi jàpp fenn ci subaak léegi sant suñu xarim borom yi am solo ak eh, mbokk mi nga xam ne moom moo ñëwoon ngir jël bés bi macha allah ci subaak léegi mi ngi fi di di ko jël di di ci taxawaay yi nga xam ne moo wax waxaloon rek ñu woowoon ko ci bis bi. kon daal defe naa ne kàddu yi moom mu gudd mu gàtt cant la rek kàddu yi cant la woon xay na ni mu ko yéenee ak eh, xëy na duñ ko ni mën a waxee te moom it xëy na lot na ci jàllale ko moo waral moo wax ne rek nañ ko tënk kon képp koo xam ne rek taxaw nga ci taxawaay bi fees rek yeewoon nañu tudd sa tur jaar sa tur fësal sa taxawaay waaye nag. dañuy wax ne euh, boo limee rek da ngay fàtte kenn tey xëy na ñenn ci ñi jot a seen tur dañuy ay kilifa yu nekk ci kaw yoo xam ne mëneesute ñàkk a euh, jaar ci ñoom siyaar leen rek waaye ñëpp daal bàyyi xel ne gis na ñëpp mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. di ñaan wépp yi woo xam ne am na ko ci bis bii nga xam ne mi ngi koy taxawal daal na ko bokk ak ñëpp ñëpp bokk ci jariñoo ndax taxawal guddi Yonent bi moom ku nekk xam na ne euh, attan na lépp ñu ngi ñaan jàmm ñaan xeewal jaanal ñëpp tawfeex ñaan képp koo xam ne ñëw nga ci bis bi daal sa tànki ñëw sa tànki dem yàlla nekk tànki faju aajo tànki xewal te képp ku fi fii ñu fi ñëwaat del si déwén yàlla bu fi kenn manqué te képp ku fi ñëw yàlla nga yëg ak yokkute ku saay rek baatin yu wér ngoo xam ne tey sa taxawaay ci bis bi jural na la ko kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah kon xam naa ñu jox Serigne Ndam Mbacké mu ñaan ngeen ñu yëkkati jataay bi ñu bàyyi xel ne it jàngati xaside yi ñu ngi doon ñëw xam naa ci kanamit it danañ fi war a taxawal njàng mam solo ñu bokkul leen teewlu bu baax a baax kon xam naa ñu ñaan ngir yëkkati jataay bii rek waaye nag euh, ñu xam ne des na tuuti am njàng moo xam ne dana fi war a am ci kanam incha allah kon ñu bàyyi ko xel asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waxtaan naa ko la baam ko defaat. ko la ah daan tur yeeseer loo si faral di ay bak Sëriñ Tuubaa.

daga